li safinatan bi kullil li safinatan min daari minan yaasal minna ñi ngi wax ci turu murid yi nekk ci Mauritanie ñooñu ku ne xam ne ne Serigne Sidi Mbakke moom Serigne Mourtada euh, moo ci jiitu ci turam ak turu murid yi nekk ci dëkk bi yépp ñoo ngi jottali kàdduy sant sant goo xamante ne ci suñuy biir xol lañ ko tibbee muy sant goo xamante ne ñu ngi ko jëmee ci sunu kilifa gi di sëriñ Basiiru Mbakke ñëw fi gane si ñu mboolem murit bu nekk ci dëkk bi ci xolam mi ngi mi ngi lay sant sant goo xamante ne euh, mënu koo wax ci làmmiñam li man rek mooy ñaan yàlla yàggal la fi yow ak mbooleem koo xamante ne ànd nga ak moom sëriñ Abdul Ahad sëriñ Murtala ak mbooleem ku nekk ci délégation bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax di ñaan yàlla sàmm leen te taxawu leen mboolem koo xamante ne ab daayira la bu nekk ci dëkk bi muy daayira soxna jaare yi ñaari soxna jaare yi fi am wala ñett dayra yeneen yi ñépp ci turu fédération bi ñu ngi leen di sant cant gu am fu mu commencé waaye amul fu mu ndax depuis bañ commencé lii ba léegi wax dëgg yàlla ànd ngeen ko ak ñun te na mu gën a rafete te na mu gën a mate depuis ba ngan gi commencé ba léegi amuñ nag lu dul kàddu sant rek euh, kon ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla Serigne Touba mi tax ngeen di jëf mu fay leen fayal leen boppam waaw bi ci toppit mooy ku ne xam ne ne fii li ñu dund réewum jàmbur la du suñum réew te murid yi fu nekk dañuy dem daayira dañuy jamante euh, ci seen biir ñu ngi sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal ñu ba ñu gën a mën a dund ci jàmm ci réew mi te bañ a am benn jafe-jafe ndax wax dëgg yàlla euh, bu timis jotee sax kenn du ñemee tee génn waaw loolu nag kàddu la yoo xamante ne ñu ngi sàkku sëriñ bi loo ñu ci gën a mën a dimbale rek nga defal defal ñu ci toppit mooy suñu mbokki donga yi jànge ci baadiya yi ñoom di waa kër sëriñ Touba bàyyi lépp ñëw fii di jàng xam-xam rek ñor leen ñu ngi sàkku lu ñu leen gën a mën a dimbalee ñu ñu ñu ñu dimbale ñu ci ngir yàlla am na nag ay daayira yoo xam sax ñi ngi ñi ngi def ci lu mel noonu ñu mel ne waa waan mawaaxibu di waa première ñoom weeru jot nañ dajale seen addiya di leen ko yóbbul di ko jënd ay ceeb ak ay diw di leen ko yóbbul waaye ñi ngi sàkk képp koo xamante ne lu lu mu leen ci gën a mën a dimbalee rek mu mu def ko te jëmmi siñ Tuubaa tax bi ci toppit mooy ñun murid yi nekk fii amuñ lu dul sarsaara sarsaara di loo xamante ne yàlla xëy na ñun la ko jagleel muy ñun ñi nekk fii ci nekk gum nekk ci biir Mauritanie ñuy e, sàkku ti xamal sëriñ bi ne ko ci dëkk bi li ñu fi gën a ñor mooy bis boobu ak dëkku sëriñ boobu nga xam sëriñ bi jaaroon na fa lépp loo xamante ne e, mën nañ ko faa def ci luy jëmale dëkk ba kanam ñi ngi ci ñi ngi ciy def ay ay ay waxtaan ak ay ndaje ngir rek bëgg dëkk boobu kat ku fa ñëw xam ne fii sëriñ bi jaaroon na fi loolu nag yéen lañ koy defal kon ñu ngi ci sàkku seenu ndimbal bu baax a baax lu ngeen ñu ci gën a mën a dimbalee rek ñu ngeen dimbalee ñu ci loolu ba ñu yëgal murit yépp ne fii ak le treize sax dinañ am bis boo xamante ne ci biir kër Sëñ Tuubaa gi lañ koy kër Sëñ koy defee pour waajale ko sarsaara jooju képp ku ci mën a teewit ñu ngi koy sàkku ci ñëpp fi ñuy jeexale daal mooy fi ñu commencé woon rek di sant sant ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tawféex defal ñu taysiir sëriñ bi yàgg fee ñëw yàgg ñu fee fekk ñu yàgg ko teral ñu yàgg ko gàttandu ci barkeb sëriñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah li sadinatan bi kullil janna min daari li sadinatan bi min daari minan yaatal minna